kenn mënu fee noyyi ndax ay grenade lacrymogène ay anciens militaires yu ñu invalidé ñoo jéemoon rekk dal di baaxe tali bi waaye police dal di ñëw ngir intervenir liile moo jur coow. avant bile la jàmmaarloo anciens militaires yi ñoom dañoo mer ba futt dal di wax li nga xam ni état bu Sénégal moo leen ko diggoon te defu ko benn yoon. garab ñu war ko ci jël weer wu nekk ñu dem ba ci yàgg nag ñu arrêté loolu piis yi ñu créé itam dem nañu ba piis yi da ngay dem pharmacie sax ñu ne la piis bi jàll anciens militaires yi nga xam ni dañoo risqué seen life ngir rekk défendre seen honneur ak seen réew léegi ci ay chaise roulante wala ay béquet wala sax yeneen feebar yoo xam ne ñu ngi koy dund ñoo ngi interpellé état bu Sénégal. pourquoi avec 70 milliards. bu ñu génne woon juróom-ñaar fukki milliards ci suñu koppar daanaka coow li jeex na kenn dootuñu dégg ñu wax ci fekk juróom fukki at lan moo tax bëgguñu def loolu ci bi ñuy taxawal commission ad hoc ci ministère des forces armées. njiitu réew mi joxe woon na ay ndigal ngir ñu saafara mbir mi benn yoon. une instruction pour euh, une commission ad hoc pour régler ce problème définitivement. ñu nekk sur le pied de su fekkee jëluñu benn matukaay ngir saafara jafe-jafe yu ñuy dund anciens militaires yi ñoo ngi menacé. ay xeexkat la loolu xam loolu fii fii nii ñëpp a ñëpp a bëri fii ku fi xiifal dañ ko fee da ngay naan garab. pourquoi mu mel ni rek benn indemnisation bu toll ci fukki millions lañu joxoon a ñii di anciens militaires yi waaye mu mel ni rek xaalis bi ñëpp jotuñu si ñu tuuroon seen traite si ñoom ñëpp ci ay geex ñoo ngi sàkku ñu jox leen seen ay matukaay ngir seen wér yaram ba mu mat sëkk.